ànd ak ñi war a àndal Siteu mu noonu ànd ak tarkilaa yi parce que ne dugub bi la noonu gis ay Siteu la mu noonu def xale bu am fit xale bu am doole xale bu ñeme boppam xale bu dëgër fit Siteu la l'enfant du Djaloor est noonu léegi mujj naa dugg mujj naa dugg mu ngi noonu di def li muy def mu di roulé Maxime Mbergane day wax moom Maxime Mbergane dafay wax moom mu ndam la ku ne yaa naan yal mbin mooy ay la cinq ay la cinq man buur tiit naa tiit naa la cinq dara yee Rasulullah bi combat ay c'était le phénomène de l'Ansar ak Papa Sow le piment de l'écriface bés la ay gën a janwaar bi xale na waxoon naa ko màgg naa tarkida yi jeex na mu ngi naan jeex na mu ngi naan jeex na ay Siteu mais man mais man li ma jaaxal Siteu dafa kontaan tey Siteu dafa kontaan non mais Siteu lu ko tax a kontaan Siteu nag maa tay lay def Siteu maa tay lay def ngi show xoola Siteu nee na la yaatu nee na yaatu waxuma ko Siteu ma ko nee na la yaatu nee na yaatu nee na la yaatu Siteu ngi calli calli nee na la yaatu Max Mbargane ngi wax moom waaw lu Max di wax moom xaw ma مك سانغي واخ موم خمنا كو موكو يار موكو يار تركنا لا فينامين دو لانسا اي ست ست انا ماما لا من ست اي تركنا اي تركنا ابو خيس خولا ست ست دا فو كونتان لو تخ ست خيل مي دال لان لا لو خيو خولا ست ست فو مو جيم sita fu mu jëm. ci bir jëli lim mom sita fo jëm sita ci bir jëli lim mom sita lu ko tax a tay lan la. sita sita lan la tay sita tarkinaay ko yónni wax na ko yakam ci tay ko yónni yàkkamti ko. neex neex naqari jëli. neex neex naqari bu ñu ba mu ñëw daan ba baax ñu teg suñu ngeen. Eh. rek ñor na. Eh, eh, bu ko Siteu lu muy wax Siteu lu muy wax Siteu lu muy wax ma ko dar kindaa la dar kindaa la Siteu di dugg dugg na ci biir di dugg dugg na si tàng si tàng noonu may seen mu ngi noonu ànd ak ñi mu war si te mu ngi noonu ànd ak tarkinaa yi parce que ne mu ngi noonu gis ay si tee mu ngi noonu mbooloo xale bu am fit xale bu am doole xale bu ñeme boppam xale bu dëgër fit fitee la l'enfant du Dionewar est mu ngi noonu léegi mujj naa dugg mujj mu ngi noonu di def li muy mu ngi noonu di roulé Maxime Bergan day wax ak moom Maxime Bergan dafay wax ak moom. mu ngi noonu ndam la bëgg ku ne yaa ko naan yal mbin ay la cinq ay la cinq man pur titna, titna tiit naa la cinq dara yee bi combat ay c'était le phénomène de l'Ansar ak Papa Sow le piment de l'écurie Fass bés la ay gone janwaar bi xale màgg na waxoon Allez, xoolal Siteu xoolal Siteu mu ngi naan tarkidaay jeex na mu ngi naan jeex na mu ngi naan jeex na ay Siteu Siteu ngi noonu xool ko mais man mais man li ma jaaxal si te dafa ko tànn